sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar yi jiin waaw asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon am man mbégte del soir comme ni ñu baaxoo di ko defee ak yéen samedi bu jot ah, ñu ngi wax alhamdulilahi rabil alamin sax ci dàkk la ñu def bam ñu ah, mayee ñu ànd ak kàttan mën-mën ba mën a teewaat ci samedi tey jii nga xamante ne ñu ngi jàkkaarloog àddina wërngal këpp ñu toog di xaar programme bi di Wagan Show bi nga xamante ne mooy génne stress di reeloo suñu yaay suñu xarit yi waaye di am mbégte bu baax di nuyu njiitu réew mi ak ay soxnaam waaye duñu fàtte képp ko jàppale njiitu kër gi itam dañ yokku mën-mënam di alhaaji Mohamed Dia ak soxnaam madame Dia di nuyu képp ku ne kii eh, di fi sa doole ak entire team groupe Wagan ñi nga xam ne ñoom ni Salam di ak léewru ak ñi nga mënuñoo teew it te yàlla dogal mënuñoo teew ñu ngi leen di bayyi xel sa yu ne waye nuyu nak suma doomi ndey suma xarit suma doomi ndey suma seex muy goor may jigeel loolu yalla dogal ñu bok ci benn bir bu ñu jógee muy mohammed jang wa gan yaay gam fo la yaay waaye Baye Omar ñay ngay nuyu na la bu baax di la wacce sa wàcci waay waye nuyu nak bépp imam yi ne ci rew mi ñepp ci gox xati ci tund rew mi yépp nuyu nañ leen kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal ñepp jamm ak salam di la sant di la gërëm ñang baalo endo endoo ay ci ñu ngi lay fay ñang balo birat jama salamani biram cham kër jëm jëm ak ñaaxeer du nuyu kep ko xamne rek yaangi jakkarok sa télé ñu ngi leen di xiar di leen bëggé bu baaxa baax di am mbégte ak contenté ngir delsu dellusiwaat sen programme yi nga xamanteni moy waagan show di leen bëggal sa suné ne moo tax saay bu ñu taxawee duñu ko ñu tay di ko wax dañuy bëgg ndax bëggal gi ñu leen di bëggal ñu ñoo ci njëkk be kon ñu ngi leen di xiar bu baaxa baax mbokk yi di wax na nak tay programme bi dina spécial trop dina neex dina yëngu ndax liko waral nak moy ah tay nak dafa dafa spécial ndax li tax moy ñi ñu nara séti ak fi dëkk bi tollu waye tamit tay dañu am Energy pour bëggal leen mm-hmm. tay dinañ leen ma sha allah di ngeen contane li ngeen di xaar ci ñun dinañ leen ko jox dinañ deliver li nga xamanteni tay moy seen mbekté ba ku ci nekk fi nga tok ci sa salle di nga yëg sa bop ci programme bi ñang mm-hmm. dafa am ño xamne dañu mel dañu mat yaay di ñu bëggé dëgg la man say buma ma problème bi may am moy ñi may dajal ku ci nekk sama yaay nim la begi. loolu am na solo bu ko defee rek waagaan tey li nga xam ne mooy li war a ñëw ci programme bi tey mooy génn ak euh, wër réew mi di génn ak euh, Ousseynou Dabo suñu papa jooju dafa dem too waa dafa génn daal maanaam dem too wër réew mi seeti ay ay am di jàmmam seeti ay fansam mhm. seet ñi nga xam ne ñoo sopp parti UDP mhm. bu loolu weesoo leneen tamit di euh, honorable Mama kande mhm. moom mit mu ne moom ndax xamul nag lii lu mu doon ñëpp di dem moom mu toog moom nag dina won réew mi ne moom it ku mën a dem la te fu mu dem dina fa wàccee mbooloo mu rëy moom it mu ci wàccaay dem de. non kaay ma wax la nag bisu dem du bisu toog. Ah. waaye cey bisu toog du bisu dem. gis bisu dee bu jotee ku dund doo gor. te moom xam ne ni réew mi dañ koo fonk. waaw kon nag bu jógee war a seeti ay fan sam ah réew mi day yëngu nag. maa la wax léegi kooku ay honorable Mama Kandé. maa la ah, wax ay. ba loolu weesoo mm, mm. dinañ leen nag seedi ki nga xamante ne mooy njaago bu saf xorom mu ne ah ku koy Henry Gomez nag mu ne Henry mu ne sama xarit bi ñoom def nañu réew mi doom mu ne tasaare nañu fépp fuñ mas a jaar Henry Gomez képp ku fa jaar ndisit nga fee Gomez Henry ñett lépp Henry lii la Henry wax Gomez Henry maa la wax lii mm. dinañ seeti nag maire bi moo xool laa fii ne ma mm-hmm. mun ngaa bàyyi nag bul ñëw ñëwati sama kër ba ñaari weer dootuma wax xanaa maire bës yow maire bës ci boppam yow yaa ñu bëgg a yeb maire boss yabuñu yow yaa ñu bëgg yeb. maire boss semaine bu ne nga nan on na ma fek bana mak bana ko yow mi yañu bëgg mer yeb. maire taxaw fi ñepp di sétan mu ne ma bul ñëwati suma kër. en tout cas yow tamit ñang may ñu ñu noy ajaratu mam boy jassé nak ma nga ci town. mom la may tay programme bi ak wa kërëm ndax daf koku hmm. ku ñuy wax ñass fa dëkk. Hmm. waye dafa am nak ben ciébu jeen ma fa sa togal ñang balo hmm. Aje Fall. Aje Fall mo togon ceeb ma nga fofu ci ci town xamna dal programme bi tay ñom ñoko mom koku nak daf laa xam bu baax bëgg la. ndeysaan sopp la lool mooy maam Boy Jaase ñu koy kontaanee ak waa këram yëpp. barki démb daa am ku dawal otoom. <laughs> Mhm. ñëw ba ci buntu office ma ci récolte ma ne ma am na ku lay seet nee aji ayda la tudd. Mhm. ma ne ko waa maa ngi nii si yoon bi di ñëw ni may egsi rek ñëw di ko seet ci buntu ma loxo tànk yi baaxut. Mhm. wallaay lazim am jafe-jafe tànk waaye fexe ba kut kuti ne ma samedi du ma ci dem xew du ma ci invite nit suma kër seen programme bi jeexul. déggal loolu li ma nu ma la gisee nag laa bëggoon a gisee waagaan ma kool la ba sonn saa yu fi exeré dinaa la oo nga wax ak moom mu mhm. sopp ñu lool te leer na ma leer yàlla ne ñi mën a wane seen bopp ñoo ñu gis waaye ñi ñu sopp lool ci seen biir xol mënuñoo gis fu ñu toog ci télé ñu wax naan bilaay maa leen gën a bëgg <laughs> kon nag nit boo xamul noo koy def na mu la defa tax walaay ndeysaan waaw te tey na bu ñu taxawee fii yéen yéen a ñu tax di sonn bu a defal ba ngeen bekk kon seeni ñaan mooy tax suñuy dem di mën a gaaw amiin yaa rabbi si ñaan gi ñu ñëpp ñu bokk fu ñuy njëkk a dem te ñu njëkk a dem nag seeti looy Ousseynou Dabo kooku njiital ma nuyu anti Medina anti yam Seck di ko ñaanal jàmm ak salaam nañ ko seeti xalam yi mu yeewoo samari ji biir réew dafa ko moom waaw waaw réew mi dafa mooy kii ko moom wax ko dafa waay mo bata mo tere rek dada lef dem dada fo ah ah ah réew mi dafa mooy kii ko moom ah ah wallahi wallahi réew mi dafa mooy kii ko moom wallahi aha kai al'amara ka wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi aha kai al'amara ka ah al'amara ka léegi comme guddi na léegi dina leen dina leen bàyyi ngeen dem si kër ngeen noppalu ndax toobi dama ko war a def Gambia yëpp ñin toole mu miya lon ko e, be ba na ko moolu ben kooma ah ah ah be Gambia na ko moolu ben kooma ñun dañu génn pour seet suñu fansi eh, pour ñu xool leen sen jafe-jafe ñu mun a xam understand because so niki su la bëggee da nga jege understand so lolou motax eh, to bi lo rek la comme legui goudina di ngeen dem teri man ma ngay ñew nopalo so eleg ñu téla jox dem ah rew mi dina yengu de <laughs> ah ala bara ala bara aja al dem le ngeen teda

ha na yo lo ja o le be da amon koi fang amon koi, aha aman koy duni aman koy ha ha e de fana nyina mule do ko lo ja na mhm nyina mule do aselo lo ja ja isi lo na ja ja ani ite lo mda be la la ja ite ite lo ja ha lo ha ja ja ja aha ini ja ite le ja wala abara kaya iyo ha jambete ada jambete ada eh beta selo selo nga ise la no ja fo bi manyinya ayi nyata de eh, bari na nyimpi so ma su de de eh nyi wo mole akara nyato mu pabi de ti pabi sise pabi sise abe sukutal atele bayo sa ya dina ko ngakara puri ke mai lo ya dabo wallahi ngadu nganana bari ay ay ai lo no mhm. piso nyin dia ada nyaba adi ada ha amnesta de atele nyin kare pabi sise abe sukutal ay ai ai bayo sang aya bedi ako ya dum ini kema la nyawale wa mumu ko nyaw ne ko suma joge ci tobe mu gisma wa wa bim la nyawa rafa na toro ngana num tuda pabi pabi sise pabi sise shuku tala ne wa suku a wa mbi rafa na abana <laughs> ga la no yefu na de ya mo wa ban iyo nse ju wa li ga nyu dem teda wa be ba nyu konti wa le fum ne ni mo na ga no pale ku alhamdulillah nga sona ay ay ay la ilaha illallah to to to du jahan so ne to la sai bi mo de meti wai jarna ko gambia suma ko wide jena chono bi jena hai suma wi ne chono bi jena alhamdulillah rabbil alamin suma wi ne chono bi jena alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin mata mada fituti laurati bala mana laonda setan eh telo jande lo koyame jamaala ah. ah, ah. ha e ko kewtivi la diyam la il faut ko président o kenola afa président o ɓe bara mimo journaliste balete de a journaliste balem journaliste balem ha a fayana ha a fay alhamdulillah rabbil alamin aleykum salam wa rahmatullah honorable yow fekkulo bodigadi siɓundaɓe aha kay ñom ñom wax nema yañanalo ha wa honnaladi na nega président alhamdulillah rabbil alamin gis nga yàlla. Mm. soo ko ñaanee rek mu may la. dëgg la man soo gisee tey ma gagné réew mi. ba ma nekk si state house tey di doxal tey yàlla moo def lii alhamdulilah rabbi. ah yaa ngi state house. maa man gañe na. Ah. xanaa yëguloo lool seen seen télé yi wax nañ ko. fan laa la fekk ni démba démba rek si state house laa nekk. ah man dama foog dañ ma ne yow yaa ngi boori kerawaan man moto bi ma dugg kerawaan la ma indi de. fii du kerawaan di. mbaa du rek noo ngénta déedéet man lii mbaa du ngénta akbar ah man man de moto bi ma eh, eh, yaxa nga suma nelaw yi suma genta bu neex bi ah da genta bi daf la wane yaa ngi biir state house da nga foo ne laa la fekk déedéet man man kerewaan laa ñëw man jaala naa féeri romba baara romba muñe gen nekkuma président ah déedéet yéen président taxawal guñ ko di sànne guñ carte sax ay gañeeguma saan sax neguñ sa carte bay konte ku gagné. fii du State House. déedéet yaa ngi kerewaan. waan sonn naa. waa sonn nga kay. maa ngi gënta. waaw waaw yal na yàlla defal nga am dam baay. at mi moom su paasee. pour man maa ngi si kaw. yàlla dem su ma nelaw yi maa ngi gis comme maa ngi maa ngi fale Amérique suba. Mm, mm. ñu ngi ma jox rendez suba maa ngi doxal. Hmm. mangi fal suma ay ministre mangi def lepp hmm. president Macky Sall sa ñew na be fi mu ndokel ma. si genta bi lepp si genta yo genta nga di. mangi lek ay fruits di lek ay jën yu toy di lek jën yu laka di lek tamit ay ne ya, yo lu ah. baaw de la laajteel fi ka di génta yi parce que dañu wax contraire comme so genté lu wara a am. su fekké ne du man man direct la. ah, ah waaw du yow kay boobu ke yalla bu mu na gént gi suma gént gi tobi du ega dina egg tayal na suma yaram bi dafa sime no genta la mom waye man fekkuma la state house de man maa la fekk kerawaan man ma ngi gis teertu bu rëy buñ la teertu baara moo tax ma jàll ñëw toppasi la eh balal ma nga joma suma telephone ma gom ne man neku ma nekkuma président hey Bisa Dabo ya ngi kerawan kerawan kerawaan state house la yow si basang nga tok di si basang state house tok lo ci office tok lo fi tok si basang bété ni mëno gom ne li ma la genta la wala wété ya ngay ngi nelaw mbatu almaami taal jang moom laa def ministre pour ministre foreign affairs. koor ba. allo. almaami. ministre foreign affairs. Kerewan. man fan laa nekk man maa ngi Kerewan. nekkuma State House. Eh, gént la gént la. boo xam ne toobi yaaxu na sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar bu ko defee ah. damay dem seeti ko moom Mama Kandeh ah, Mama Kandeh ñu dem déglu moom it lan la bëgg ak lu mu bëgg a def sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar yi jiin bu ko defee rek ñu xaar Mama Kandeh nga xamante ne moom nee na bu jógee dem too nit ñi dinañ xam ne nekkul ku ndaw ci réew mi tey moom la ñuy welcome Mr. Kande. Kande. Ziska Lamon. Hey, Kande. I have a candy. Ziska Lamon. Hey, Kande. Wow, wow. I have a candy. Ziska Lamon. Hey, Kande. Wow, wow, wow. I have a candy. Ziska Lamon. Oh, Kande. I have a candy. Ziska Lamon. Kande. I have a candy. Ziska Lamon. Kande. I have a candy. Ziska Lamon. Kande. man loolu aw ma si problème am na am na ñu nekk fii xaaral ma wax ak yaa ngi fa yaa fay. maa ngi laa nuyu ngi laa fay di la kontaane di bég si yow di la wax ne kontaan naa ci sa ñëw. ndax saay bu ma toogee rek dama leen di gis. ngeen di bàyyi xel suñ liggéey ba pare tamit da ngeen di topp suñu actualité loolu def ñu neex. Mhm. ndax télé bu fekkee télévision la ñu wax télévision lii njëriñam dëgg-dëgg mooy muy wane li nga xam ne. moom la nit ñi di bugg a seetaan tey mm. wax dëgg yàlla seen télé bi mu ngi góorgóorlu ndax ñun gis nañ ci suñu bopp wax dëgg yàlla mm. soo moo tax man tey ma ne comme dama bëgg a jàllale benn benn benn message foog ma oola ñu waxtaan man ak yow ak ñi nga xam ne ñoo ñuy béggee ci réew mi ndax ñun taxawal nañ fu ne defal di teranga ci réew mi fii moo tax duñ ne cem mm-hmm. soo gisee nag ma ola fii mooy militant si yi nga xam ne ñoo toppa suñu ginnaaw nelawatuñ mm. ndax li ñu gis fan yi ku nekk politicien yi di génne mbooloo di génn ñu ne rek dañ foog ne GDC dafa deewal day nelaw ma ne leen loolu GDC feebarul naanul ay doom kenn penguwu ko nelaw sax yu yàgg dafa ko bay dee hmm? GDC xanaa neexu leen barki rasulullah maa ngi leen di waatal ci yàlla ne maa ngi leen di waatal ci yàlla mi gën a foor GDC ci miim réew kenn du ko jiitu GDC bu jógee ngeen xam ne GDC jog na ana ñuko ko ana ñuko ko yag na gis ñima ma bugga déglu leen li di wax dafa important dama leen di wax ne si ba fi kenn gula la fi jidi si ba kenn jogul la fi jogon ñu bari am luñ doon wax ci si ñu déggal seen boppa 2016 ngeen bàyyi kel bu baax li ma di wax man Mama kande duma ragal duma tapet duma delu ginaaw duma kuy dugg ci dara di def di delu ginaaw man sama yaay liggeyal nama sama bay geram nama samay na soxna fonk nañ ma samay doom respecté nañ ma te réew mi xam nañ kan mooy maamaa kan Kandeh bi ma njëkkee taxawal parti bi ñu bari dañ foogoon ne Yaya Jammeh moom moom parti bi ma taxaw déggal suma boppa ba ñeneen fekk si ma tey li li may liggéey eh, discours ju ma ci dellu delluwuma ci ginnaaw fu nekk taxawal naa fa boowal ci mi réew mi kon nag su ma toogee deew ma deew ma wari réew mi ngeen xam ne nag dem yenn yi soxalu ma waaye billaahi bu ma jógee bu ma jógee ngeen xam ne ji di si moom réew mi parewuma dem nag nag su ma demee dina dina tax gars yi dootuñ nelaw bis bu ma duggee ci réew mi ah. Mama Kandera ci mi réew duggee ci biir réew mi rek def too fu ma dem toj ko eh, billaay gars yi dootuñ nelaw waaw <laughs> man li ma jaaxal mooy dama gis coow lii di jóg ñëpp di jóg di dem yow nga toog rek benn place wala stratégie boo teg la non loolu ñoom dañuy dem seen yoon man yàkkamtiwuma ah. su suma mënita sax ñu bari ñu may oo ana sax fan yii mu ngi may. mu ngi may neexal naan ma demal demal too demal too. léegi su fekkee ñoom bugga nañ ñu wax man ndax pare nañ pour ma dem too ana ana argaay wala da nga tiit li nga jot a man tiitu ma ah. boo ma xoolee ni ma leeree ak ni may ni may reetaane nga xam ne tiitu ma dëgg la xoola suma soxna si waaw waaw xam nga ne kii mu nelaw de madame ne kii mu ngeen nelaw waaw waaw kii mu yu doy ku ko gis xam ne yor nga ko nelaw yu neex waaw waaw ku ko gis xam ne góor gu baax a ko yor sipa sipa lay reeree ah ak lim seeree sipa sipa ah? moom lay reeree moom aana mi soo ko togg sipa sipa lay reeree nekk ne ni ginaar lay de eh, waay dégg nga tey mhm. coof añ jën coof la añee moom lay añee waaw hmm. saay bu toggee suppa kañ nga xamal ne faare xar baa ngi ci biir pol la hmm. ànd dégg la wala du dégg bàyyi nag li nga may forcé naan ma demal demal demal too demal too dem su nekkul loolu dañoo fële xoolal da nga ragal fekk loolu yow every day yaa ngi receive ay call ñu ne pour nga dem too pour nga dem too ana dema too ana mi yaani ñiti ko ñu la ñaan ñiti yàlla ñaan ana mi yaani min da dam buri foof kala ñoom ñi ñëpp seen nit ñi suma ni ne dama buri kambe foof kono ko ma yaha kala ana mi yaani ana mi ma mi yaani mi jeeji ma ana mi yaani accanam fi yàlla yaha ana mi yaha ta too ana simi yahi too majjata ana ana mi yahata to mi yewto ah, awa ah, waaw kande kande nag lii moom ah lii nag moom daw na yaram ah ki suka ba ci suuf di la ñaan nag demal too su ma demee too du baax ci gars yi de daay day di daay yow jigéen la dooleel jigéen a la góor gu baax boo gis jigéen ju baax am jom moo toog ci wetam di ko jàppale boo jógee dem doo wéet yoon mi te doo am gàcce ndam rek ngay am mi yaat waaw demal rek ana mi yaat yow loo bëgg ma def ko ana mi yaat wallahi ndeysaan waaw foos la dee ngi nag mm-hmm. kon dinaa wax réew mi ne leen fan yi dina jog comme ana joxe na ndigal ci kaw suma ndigal ci ndigalu GDC dinaa oo ki nga xam ne mooy MC Cham mhm. mu mobilise gars yi ñoom ñëpp nekka mhm. nekk wax ma ni ngay waajee euh, ñu ñu jéem a jublu ci too bi mhm. waaye maa ngi lay wax leen ne de GDC rek ak too fu dem dina ko maa gis loolu euh, MC Cham argaay kaay MC waaye kaay waay ngay yukkaab yukkaab yi nga wax ma area combo bi moom naka nga ko gisee ak buñ déparé ndax ndax dina am impact ndax xam nga nit booy def dara da ngay xool da nga koy teg ci yoon MC Thiaman leen fadle na salaamaaleykum waaleykum salaam MC euh, too bi na léegi foog ñu def ko euh, ma wax ne gars yi ñu ne dama ragal a génn dem too ma bëgg nag wane suma bopp ndax jot na léegi foog nga area combo bi la ban mooy stratégie bi waaw man euh, côté siyaaraat bi ma nekkee mhm. mbooloo bi ñëpp a ngi xaar hmm? bëri nga fa nit lool. waaye tàccu leen loolu waaye. macha allah saa every day ñu xëy ñu ne ma xanaa ma mama du ñëw. <laughs> te da nga war a dem. cey mama soo demee da nga war a dem. <laughs> Eh. soo demul da nga war a dem. waaye doole doxul jàmm kon da nga war a dem. waaye MC wax nga dëgg waay. doole doxul jàmm kës ay. MC waay xanaa na dëgg. kës gi ah. ay doole doxul jàmm. <coughs> am na ku ma <coughs> yow kii moom door bi ko doon. non non dama kontaan dama kontaan xaaral. alo Anna waaw. Anna ma. non mu ne dafa am délégation bu may ko bu may bu may ah, xaar. kon xaaral ma waaw ne leen ñu egg de eh, non dama bëgg mu fekkal la fii. Ah. <laughs> waaw wat gaal ak yegoo. <laughs> Ah, ok bisimilah kan la hmm. nu ngeen bokk. egg si leen egg leen waay ana délégation bi allo. waaw xam nga ci ginnaaw ca déwén la dinaa ko woo génn dinaa ko ko woo génn waa baax na bala ma góora bala ma waa de man sa télé ba dégg nga waxama ko ñoom Kounda. salaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Mamadou Lewru. na Mbada. Anta Bella. Anta Seydou. Eh, jërëjëf jërëjëf. jërëjëf sama mbokki Pël yi gis naa li ngeen di def rafet na neex na. Mm. Eh, maa ngi ci sen délégation bi ngeen def yow wa fan nga. waa Sanjal. Sanjal ga tu hmm. ba hmm padi wu mo waxal la lenn Ibakunda mbaa ba hàngale mbaa mbap français sax ni ñu fa ñu dik man li la bokku len ci gambi dégg nga. <laughs> ñu ne fu ñu toli makante la ñoo xaar. ngeen sanjalo ngeen Sanjal ñu la xaar ngeen na seen ruq-ruqaan yek ñepp ñaan mamara maama wara dik bo dikul dig boo digul ne fa nga war a dig ku la digal loolu laa la ma la wax. jërëjëf jërëjëf. ma nga dem lolou doyna na jërëjëf soo gerte naa la jox pass bala nga dem yow wa fan. wa mama ñun wa fuñu le wa wa fuñu nak dañ na sox soxla bu gaaw no meuna a ñew fu ñew fa rek. su ñewé di ngeen genn inshallah rabbi xar yeex be yeex nak yeex ñepp di lañu genn yow lañu xaar bu soba yalla bu leen ma tital de dugal ma ci yoon bi ba pare duma gis nit. yow wa fan mi ngi ko base mi jëyaa Mm, base haray tigi tigi base no habbi no habbima to moƴƴa délégation feno jama fo no yalti jooɗi yaasi habbima mm. mama kande min mama kande an mama kande jama on no sokol ma moƴƴa ɓe wi hikka si allah jaɓi ko an jeey jullere laamu nden mm, bugen ɓulen ma nagde ko ɗum ɓe wi wona mawɗo wona paykoen wawma ñawal be bare ma gennen dem duma gisnit e eh? gen ndira ma a gacce noɗenaaci yaha ala pro ala problème loolu loolu MC eh, Thiam toppatoo loolu woo ngeen gor woo jàmbaar woo bete bete woo ku réew mi gërëm ak fameem ak waa koñ boobu dëkk eh waay eh waa maama may leen ma may leen ma may leen gis nga délégation bi. ni mu waaw ñëpp ñu lay dooleel mu dem xamul ba nit da di jóg loola tere jóg ba nit da nga war a jóg. non fi ne bëgg naa jóg. waaw jógal nag waaj waaj gu am. doole waaye ni nga ni nga xoolee seen kanam yi nii. ay borom mbooloo la man may ànd ak Télé QTV toppala sa tooy war réew mu yëpp ne yow yaay kan bul tiit. kon baax na jërëjëf waaw jërëjëf. léegi nag borom doole ji jóg na. wax naa leen ko waxati leen ko bu soobee yàlla tey ngeen xam ne ñun ñooy ponkal. ñun bu ñu jógee rek réew mi yëngu hmm. tey bu ñu jógee képp ku doon jóg dogee nëbbatu da ngay làqatu laa la wax jii ku ne na dooleem dinaa toj réew mi ku ragal na nga taxaw ku ragal na nga daw maa maa ngi ñëw dal seen kaw sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jin bu yewoo samar yi jin waaw kay maama Kane nee na bu ma waajee ba jël yoon dem dinañ xam ne man Kande nag du ma ko ndaw ci réew mi ay waay ñang ko waaw bawul lu yàqu yow wax li xam nga Mama Kandé moom ndeysaan borom baax la. xam nga te yoon dem sax daa terewul kenn dem. waaw euh, euh, toog ba mu leer ne da ngaa war a dem nga dem ayul. Mm-hmm. Mm-hmm. bëgg dem taxul a dem. Mm-hmm. man na damay tax a dem te moom mën na ko. dem na te nag sax nag kaay ma wax la Youssou Ndour woyoon na ko. léegi boo ko defee dañu dem seeti ko euh, moom ki nga xamante ne mooy Henry Gomez. ñu dem moom it déglu la mu wax. jëmale ko ci ki nga xam ne moom waaw waaw moom mooy ki mu topp kon ñu dem déglu ko moom te dasiwaat. sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi jiin bu yeewoo samar yi jiin waaw kay loolu am na solo ana Henry taaj leen ma Henry Gomez mu ñëw wax leen wax leen wax leen yuxu leen ca kaw yuxu leen yuxu leen making a full fight. Making a full fight, Madeka, making a full fight. No, who let Kedu Lenlan? Take Magegula, Kedu Lenlan, Manapowa. Take Magegula, Kedu Lenlan. Kenan is safe. Making a full fight, Madeka. Mila. exactly nii ko bëggee. waa Henry yow réew mi boot waxante dëgg réew mi duñ ko joxe ati waxoon naa ko waxaat ko réew mi duñ ko joxe gis nga bi président bi demee ci àll bi rajaxe nañ ko yàkkati leen seen ma de yes lu tax nga bëgg ambiance non xam nga li mooy am na ñoo xam ne soo noppee dañoo foog ne yaa ngee nelaw nelawuñ hmm. waaye ma wax la ne bi ñëw suuf di jàlla gaañaa ngee nelaw hmm. soo ñun bu ngeen eewoo fekk ñu ci fiil bi duñ leen ko bàyyee hmm. ba ñu ñu ci nag naka def ñu ngee tane te Henry yéen li ngeen a gis yëpp amul leen dara lu leen tiital xanaa gisuloo a gi niñ ko def gis naa àll bi de waaye gisuloo ñi ne ñi tam nañoo defee xanaa gisoo àll gi dañ ko waaye man daal ma bëgg a dégg tiituma dara wala tiit naa xanaa gisoo niñ la jaxee Banjul xanaa bu fa soon gisoo ko rojaxee. ah toj nañ ko wala tojuñ ko. xaar ngeen ko ma ne ko. ay toj ko ay toj ko ay toj ko ay toj ko ay toj ko ay toj ko ay toj ko ay toj def nañ ko def nañ ko dexin. Hmm, dexini lan. paaj. emuñ foofu ñu dem West Coast Region def ko maafe yàppa mana ñu dem base nga ne foofu la affaire bi gën a puut paaje ñu rajaxe ko kon réew mi yëpp dañ ko rajaxe bem tasaaroo loolu nag kum na xari hmm. sa affaire la hmm. bu la neexee boo tëddee nga fanaanee xoole ba bor set ñun su yoon nekku ci man Henry Gomez maa ko wax parce que bi ma wax yéen a ngi toog kum na xari nga ñëw ci man man I don't care because bi ma jóg kenn jógul ba ñu ñu ci nanga def ñu ngee tane bi ñoo xoslu fan ngeen nekkoon ñu xoslu ba am suñ li am ba pare ngeen bëgg a ñoo di bu ñu kenn a yab bu ñel ñu fontoo ñu ngi ci gannaaw Adama Barrow because Adama Barrow moo ñoo jox liñ soxla man Baye Fall la man faale wu ma. man li ma la laaj tontóogu ma ma laaj dama la laaj ndax tiitu leen dara li ngeen di gis fan yëpp ci euh, social media yi. man xanaa laajuloo réew aha kay. li gis si télévision si doyule. aha kay. li gis si mbedd doyule. aha kay. baro bi moo ñib si gisuloo. for na rajo xëy nañ tasaare nañ réew mi. li ma gën a neex daal mooy ñoom dañ toog ak full confidence tiituñu dara dara yëngalu man lii war góor day nuuru ne man góor pire la. gis ñun ñi ànd Adama Barrow. ñun duñ cuune. suñ defee dara daf dee nekka. réew mi ñu buga ñu buga réew mi kum na hari bul nelaw. bu leen na feccloo man du ma dee fecca. Eh, di dem nga màggali ren. because man Baay Faal laa. demoon nga màggal taalibe Serigne mm, demoon nga màggal. non naa. Mm. dama màggali woon ñaan. waaw ñaan nga de. understand koo waxal ci xabru yi. ñëpp laa waxal. Ah. ñëpp waxal. maa defaloon na waaje defoon. soo may wax ne. Ah. yéen ñi nga xam ne a gëmoon Adama Baro. Mm. démba barki démba na ngeen ko gën a gëm tey. ko because Henry Gomez a ci ginnaawam. gaynde naa gis ma gen a di wax mhm. ñu foog ne gaynde gi dafa nelaw gaynde gi nelawut mu ngi xaajaaral ay botam jërëjëf gaynde gi jër jërë ngeen jëf yéen tamit jëf ba a kontaane di la jaajëfal bu baax a baax gaynde gi nelawut ee eh, ngeen kanak ee eh, ngeen gaynde gi maa ngi a wax lu garaaw dem leen ngeen tëdda nelaw réew mi duñ ko joxe réew mi duñ ko joxe sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi din bu yeewoo samar yi njaago yi namoon nañu la. Henry Henry Goffin njaago yi namoon nañu ko. Henry Ngenelan. njaago yi namoon nañu la. Henry Ngenelan. moo baroon namoon na la sax. Henry Ngenelan. man sax namoon naa la. Henry Ngenelan. ñang bala namoon na la kat. waaw waaw Henry Ngenelan. Mustafa namoon na la kat. waaw kay Ngenelan. moo Thérèse namoon na la di. dëgg it mooy lan. yu sax namoon na la di. Henry mu ne lan. waaye xoolal ñun ñëpp ko namoon nag. waaw ngay nelaw. bu yeewoo xalam bu yeewoo samari ay ca ñang ñu ngi lay kontaane waaw bu ko defee dañu dem seeti ko maire Beus ñëwal maire Beus nu ko neex lay demee Dikal nu ko neex lay duggee dikkal nu ko neex lay waxee dikkal nu ko neex lay waxee dikkal nu ko neex lay solo dikkal sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jin bu yewoo samar yi jin xam naa ne fu mu nekkee ki may ñëw oo moom la ñëpp toog di xaar moo tax saa yu ne dama koy mujjee ndax bu jógee dem ñëpp jóg ñibbi koo koy kan dama leen di ngeen wéyal ma ko mu dugg nu ko neex lay jógee dikkal nu ko neex lay duggee meer bës meer bës mer bës nu ko neex lay solo eh, ndikkal nu ko neex lay eh, duggee ñëwal nu ko neex lay waxee eh, ndikkal nu ko neex lay solo ñëwal dee nga de nu ko neex lay solo ndikkal nu ko neex lay solo ñëwal nu ko neex lay solo ndikkal nu ko neex lay waxee ndikkal ay ay Mermoz dikkal Mermoz lu ko neex lay wax Mermoz dikkal Mermoz lu ko neex lay solo na loxo yi bëkke ah, waaw na loxo yi bëkke ñëwal na loxo yi bëkke waaw na loxo yi bëkke bëgguma boobu bëgguma nu ko neex lay duggee waa ay ay ay ay na la hoyin bokke bëgguma ko man bëgguma ko ma sawal lu ko neex lay doxee mère bës lu ko neex lay xone mère bës mère bës lu ko neex lay solo mère bës mère bës lu ko neex lay waxee mère bës mère bës lu ko neex lay joxee mère bës ñëwal mère bës lu ko neex lay cekkas mère bës cekkas mère bës cekkas mère bës mère bës lu ko neex lay solo mère bës Merbees Merbees Merbees Merbees hey suma daala bi cet la cet la cet la cet la cet la taxawal balaa maa daal cet la daal dama tànk bi dafa mel ni dama na tànk bi dafa damee musiba daal la dama na de tànk hmm. bi dama na kay. dama na kay waaw dama na kay mu mën a taxawoo. waaw baax na baax na waaw tànk bi baax ah, ah. na waaw. bii la bii moo dama waaw dafa dama bii. waaye mun nga see taxaw. Ah, mun naa see taxaw waaye dafa dama cet la waaw. waaw dafa dama waaw yow tam sa tànk yaa ko gën a ñaaw tànk yi dafa dama waaw dama na waaye du ma teree wax suma soxla hmm. maa oh, la mais bés deu la soog da ma waxoon bu ma bu fi ñëw ba ñetti soxla soxla ya de rek di daanu suma kaw. wa waaw. léegi nag dama bëgg wax. ak askan wi. lo bëgg wax bala ma wax askan wi mo wax la suma ñi ma ñi la am man awma ñeneen. waaw tàccu seen bopa seen ma ci ma ci xaritam yam ba moom lay àndal daaw ñoom la àndal ren te ñoom lay àndal déwén kii xamul soppeeku. mooy saa yu taqee rek nee na ñàpp ki sa kaw. yaa maa jooy loo. dee daf day góor nag la garmi la tabe na yewe na baax na yaatu na. waaw te ni jaboot nag di dee njaaxaandaay. suma tànk bi dafa dama. waaw dama na kay. Mhm. masa. yaa maa jooy loo. waaw jooy. waaw ah, li nga rek laa wax. jabari président la baro efrebe def ma de seesi wa yo fatumata ba baro yo bah nga di waa bah baax la dëkk bi yëpp amee nañ ko waaw xam naa dafa am yaram léegi moo tax amee tulo waaw waaw dafa pataa waaw waa kii ki tres la xam nga tres waa moo fi repese moo repese njaago yi fii tres ku bah la waa ki njaago bu baax nga gis nii waa waa waa kii waa waa xaj yooyu soo demee Angleterre. fayu nga waa fayu nga fayu nga uy ma kii Paul la ah. kii Paul la Guinée la jógee. Ah. bi mu dee Guinée Alpha dem na ba tey óolu ñibbi. Ah. mu ngi nii waa ñibbi wut Alpha Condé li fi na dem. nañ ko de. waa ba léegi nii moom gëmu ko waaw mën ngaa dem. gomu ne Alpha Condé jóge wu fa waaw kii Amérique la nekkoon waa Dibakunda la dëkk. Diba Kunda la dëkk mooy seen tubaab bi. Ah. Diba Kunda bi nekk fële du fii de. moom dégg na angale ba bi nekk boori boori Palen Sanjar. xam nga ngeen Sanjar. nga Diba Kunda. man man mi eh. kuma xamul ngeen ak eh. xam nga Palen Sanjar. waaw waa Palen yëpp nuyu naa leen suma rakabam fa. Fatou Niang suma rakk la ak mm. suma nijaay kii Murtani la jógee mm. naar la naar eti naay naar bi ñoo coup d'état mm. naar si la juddu moo tax nangoo tuda dem waa dëkk buñ ko daal ñëpp daw dafa ne mm-hmm. waa léegi nag li ma wax suma tànk bi dafa dama cet la ay waxal bàyyi ay tànk bi dafa dama waa xam nga lii bu bi dafa dama déedéet bul wax man maa ne dafa dama cet la tànk bu dama la waaw ah, waaye bu ko waxati waaye ah, mère bi tànk bi damut waaw kon tànk bi damut. waaw kon dafa rëxa. waaw dafa rëxa waaw waaw. Mm. damaa wax na tey mooy. lan war a wax nag. waa nawet yéen a ma tax a jóg. yàgg nga wax na waaye tey nga doon. mère Boss waxal. mère Boss maa wax ñu jël. loo wax ñu dégg ko. mère Boss waxal. loo wax ñu dégg ko. mère Boss waxal. mère Boss da nga war a wax yow. waa kay kay duma binda nii. yéen a ko moom dama ko bind ba mu fees nawet suma xarit yekk fa nekk waaye du tere ma wax leen dëgg. mais bos mun na am gaa dañ nekk si ay jafe-jafe. ban jafe-jafe. ah ñetti fan kon ñoo gën a si jafe-jafe. waaw yéen ñi toog naanatu ndox bu seeda. suñ galaas gi seey na. suñ doge mi yaaxu na. ku tooga ñaari fan nga am. ñett am na ñoo xam ne one week la ñoo tooga. tey supp kanja suba maafe gannaaw suba mbaxal gannaaw waat suba dugal ko si firij bi. dem liggéey soo wàccee nga tàngal. waaw lépp ndax nawet ah, xam na ne neexu leen nag man xam naa sen liggéey xam naa seen taxawaay xam naa seen bugga bugga te xam na du ngeen yaaxa réew mi du ngeen sonal nit ni mm. waaye nag dëgga dëgga maintenance bi na am time mm. te na am fu moo em tàngaay bi métti na da ngaa fanaane ëpp bët yooyu di la maata yooyu di ka xam nga yoo mm. lu gën a bëgg mm. mooy fekk ko def yaramu neen ak lëndëm ak tanga ak lëndëm ak tàngaay da ngaa ñax ba bëgg a dee def yaramu neen di ëpp mu ñëw fekk la fa nan la dofi na lawee dofi na lawee dofi na lawee fu nekk nga dóor ko sa yaram bi di nga tàppa sa yaram bi sa yaram bi fanaanee ta yoo du la maata dañ laa xooxatal ah. yooyu ñoo gën a bon yoo ah. dafa ñëw ne dofi na lawee rek daw nga jël sa yaram bi ne ko ral ral ba sa yaram bi yëpp tëral nga foog ne ñoo la maata fekk laaluñ la. Ah, léegi boo toogaatee ba jëlaat nelaw ñu ñëwaat nelaw doo fi nga ne ah, bu dee jóg seen wiir ah. nga ne yow lim gën a bañ. Mm. su ngeen si yooyu. Mm. wax na du dee nelaw dafa eh, gëmëntu wax na dëgg du dee nelaw bàyyi ko bàyyi ko nelawal nelawal yow soof nga toro bàyyi bàyyi ko ne gi mu nelaw nelawal kii dafa waaye moom dafa lakale ki dafa kii dafa xoole ba yaramam bi yëpp dem ngaam yi waaw bàyyi jàmbur dafa nelaw fir nelaw kay jogoro hopp ko hopp ko daal yi ci kanam yaa ngi dégg léegi nag dama bëgg a waa nawek hmm. ngeen maintenance waa baax na waaye ngeen ngeen may ñu tuuti laayet tàngaay bi metti na de ñu wax leen ko ñu ñàkk leen ko wax tàngaay bi metti na te réew mi na war nañoo jox si problème yi light mm. dégg naa nag ci maintenance ngeen nekk wax ngeen ko mm. waaye da ngeen ko teel a wax ñu teel a xam suñ teelee xam teel a fagaru waaye ku tooga one week def ko sa firi lépp yaa nga di ko tuuri ñaaw na ba pare tamit ndox bu sedda amatu tama dama amee su ma naanu ndox bu sedda dama am problème a da daf lay rey tàngaay xam naa kay ba pare kaay ma wax la yow doo dee léegi waa daan ah, show moo tax yaa ngi dégg mm. light bi su amutee mm. su amutee light su lëndëmee mm. xale yi dañ dee jaxasoo understand nga mag ñi dañ dee feebar dégg nga ba pare because tàngaay bi dafa def seen xel yi dafa dem man de nangu naa ne ñu ngi maintenance waaye man li ma mënta nangu mooy dañ ko war a defal annonce def ko ci radio yëpp ñu wane ne nawet dañoo am off diir sàngam ba diir sàngam déet foos ba déet taat su ko defee nit ñi xam loolu waaw ah kenn dara nga mm. jékki-jékki rek noonu nit ñi togg seen soosi mu yaaxu nduggo yi yaaxu ñee jaay jën ca tefes ga tamit yaaxule ñu yaaxule bari nañ de du togg kat daman foogoon naa loolu jeexoon na fi because am na time laaj bi dafa baax wax dëgg dafa baaxoon de foo ah. yees yëpp toogee ba léegi life baa ngi four years depuis five years di ñëw ba élection di ñëw ngeen ngeen di copie di off on and off si tàngaay bi wóorut baro dina leen mere pare na yéen waa nawet suma xarit ngeen waaye bàyyi leen ngeen a def tàngaay bi métti torop ñu ne ñu fanaane ëpp bu bët set ku ko waxa ku ko waxuta si xaw ma da ngeen def ak yooyu diil xaw ma lan because yooyu su laaj amul lañ dee mun a maata nit ñi dañ def ak yooyu diil man xam naa loolu dañ def ak yooyu diil yéen waa nawet da ngeen def ak yooyu diil yooyu dañ leen jox xaalis ngeen nekk di ko laaj faj da ngeen def ak yooyu diin mère Bos waa nawet mën nañ laa yóbbu koot da yaa ngi leen nañ ma yóbbu koot yéen waa nawet yóbbu leen ma koot da ngeen def ak yooyu diin maa ko wax da ngeen def ak yooyu diin xam nga lu lu lu bon lu bon mooy sos te yaa ngi sosal ma maa tey wax da ngeen def sos gi su ngeen bëggee ñu maa ko wax yéen waa nawet yéen waa nawet ngeen indi laaj bi wala laa juum da ngeen foog ne ñun xamuñu xew yéen a yooyu yéen a def yiin pour yooyu di mën a màttal déglu déglu déglu yokkal yokkal ma tuuti yow light Nawet in the light bi waaw waaw in the light bi nawet in the light bi oh, on and off one of the Think about what this amount. Then them back and why was it waaw xale yi yal nañu leen gërëm ah. domine yu courant off na. ah wax na dëgg. domine yu yaakaar tas na. yaakaar tas na kooku ñëpp yaakaar tas na. waaw waaw. domine yu ñàkk a ndox la. tàngaay bi ak kooku. waaw waaw. wul ma di ji na ni. wuyaay. dëgg la. nake ba indi mbaara. ayi. wala dëgg. bu yewoo xalam yi jiin bu samar yi jiin waaye yéen dégg ngeen maire gis nga li maire Beus wax hmm. moom moo taxaw fu muy waxee ñëpp di ko seetaan. dëgg la waaye ñi bëgg a wax te mënuñoo wax. ak a ah, bëri ci réew mi man de moom a jaaxal ñi bëgg a wax te mënuñoo wax ay Hmm. londi lañ gëj a am courant ñu fanaanee ko londi xëyee ko talaté endo ko fanaanee ko talaté xëyee ko alarba ba ni ma ñëw liggéey si ah, ba ma ah, man nak ñang kay mo la dama dama dama dama respect maire boss xamul tax ah. lum la wax rek dafa am waaw maire boss te problème yi nit ñi di waaw te lu nit ñi mën da wax yeen say mo dara sax ma ki lu may oyé tey lu mu war wax hmm. bo waxee paré mu ko il faut xamee lii ah doyna war waar hmm. doy de ñu ngi ñu ngi ñaax bu fekkee jafé jafé la bo xamné euh, dafa doon tawat bu ñu mënta gaaw a saafara na ñepp bokk ñu ñoo dañoo maintenance waaw ñu ñu ñu ñaan ko li wax la d'accord booy maintenance taay mu sedd nga koy def ay taay bi tàngaay bi ma doon neex nga annoncé ko ci radio bi wane ne bés sàngam laay dina am jafe-jafe ba bés ngeen joxe diir bi ku amee jën si firi jëm profito togg ko kuy togg denc ay soosam mu profito lekk ko waaye togg sa one week soos mhm. mu yëpp yàqu mhm. dafa métti sa nduggi one week lépp yàqu dafa métti de waagaan te time bi nag time mu tàngaay la pour am bu doy dafa jafe bi dafay tax laay bi machine yi di tàng all the time yéen waa nawet ñu ngi leen di kontaane di leen jaajëfal waaye nag bàyyi xel ci tamit euh, problème yi ni ñu def ci baax ndax tàngaay bi ku ñàkk laaj dootoo nekk nit waa loolu moom dafa leer moom <laughs> waa mhm. loolu am na solo kon bu ko defee rek dañu dem euh, seeti yëgle ak yi baane tadaasi waa ayca sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar yi waaw kay damay neex lantalim bul musa jaaxle ci lu mu tilim tilim bu laalee mu set wecc Profecto Omo moo gën ci yow mii raxas sa ndab moo gën ci yow mii raxas sa karo waaye saa yooyu fóotit jëfandikol Profecto Omo ndax da koy ba mu weex tàll man daal gëm naa Profecto Omo bu may raxas sama duusa moom laay jëfandikoo ndax dafa xob teg si tamit dafay setal wecc teg si dafa ànd xet gu neex waaye li ma ci gën a tee neex mooy sakkan gi mu sakkan loo ci def lu mu tuuti tuuti rek Profecto Omo ak xëb di xëb lool day setal xol ndax dafa neex a jëfandikoo te préfecte omo nangu naa ne mooy buuri omo yi ndax kat saa yoo ko jëfandikoo di nga xam ne lii ma lay wax du naxee mbaay réew mi waa loolu lu mu doon boutique table wala marché foo dem danga ko fay fekk préfecte omo rek ak neex a jëfandikoo préfecte omo ak préfecte omo mooy omo bi gën asalaamaaleykum. namm la nag tax ma seet si la. bay defal ma lu ma neex waaye. xamoon naa ne Armanti Mbaye rees la. noo tiitee yow. Ah. Armanti produit yi rek laay la. moo tax it defaral ma ma yow yaa waa sama gën gi doy waar ah moo yey nag armanti ak ay prodogam gis ko ànd ak sa sago day jafe lool ndax li ko waral mooy dafa neex ànd qualité ba ñu jëlee seen yoon ba tey wàcc ñu ko mësuñu wecc seen bépp caf kay prodog neexul ba neexul waaye armanti ak ay prodogam dara gënu koo neex mayonnaise bi gën na lool ci saa yoo sa palaat bu rafet saa yoo ubbi siwu armanti mayonnaise xet ga foo toll koy jël waaye tamit noonu la amee meew armanti bu ak ay produits amul lenn lu ko gën ci kër dongo war waaw ma ne am gen njagaan kaas yàlla tere man suma jabar mu ne njagaan kaas rek la bu ndax moo gën a sakan moom lay toggee de Ah, ok. Si era su vez, viñora. kon njagaan gaas amaat na ay jeex na <laughs> bàyyil ma ñëw léegi léegi. ci njagaan gaas moom la ñëpp taamu ndax ñëpp a koy wër rawatina jigéen ñi nga xam ni ñoom ñooy toggee gaas njagaan gaas rek la ñu taamu te tamit doomi réew mi ñoo ko fi indi fii ci biir Gambia la ñu koy fiile képp koo xam ni da ngay togg njagaan gaas nga taamu ak ki nekk ci hôtel bi njagaan gaas la taamu bépp taay boo soxla rek am nañu ko am nañu bu kilo am nañu 6 kilo 9 kilo 12 kilo 38 kilo ba 50 kilo lépp loo ci soxla rek ñegaan gaz am nañu ko yow mi koy laaj kool leen ci 371 4453 baa nga fekk leen ca kaanifin ci Johnsonu Sankum Silla gaz bi gën ci gaz yi gaz bi gën a baax te gën a sakkan mooy gaz cey njegaan gaz bi nga yegsee rek la xel yi dal cey njegaan gaz man moom laa wax cey njegaan gaz mooy suñu gaz sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi jiin Huíamos amarillo. waaw lii mooy li nga xamante ne moo doon yëgle yeeg yëbaane yi jaar ci biir programme bi di mel ni Armanti ak bla euh, lifin euh, bi préfecte omo bi waaw xam nga xam nga ba pare euh, njagaan gaas tam waaw waaw njagaan gaas tamit ndeysaan moom it moom it ci la bokk waaw yàgg na ci raam wax dëgg yàlla ñu ngi leen di nuyu di nuyu nag yi nga xamante ne ñu ngi jël seen i koppar di ko def pour show bi dem mhm. soo demee ci yeneen réew dañoo fonk seen star mhm. fonk tamit seen i programme yi ñëpp di seetaan di ci dugal seen i koppar di leen support waaye man mënumaa bàyyi xel jàmm ci dëkk bi ñu naan la li ngay def neex na waaye amuloo copie bi abal moom ma copie dama ko bëgg a seetaan demal jënd kaset bi <laughs> ah, doy na waar <laughs> am na solo ñang baalo comme ni nga ko waxee rek Armanti moom suñu kër la euh, ñun ñëpp ñoo ci yem ndax Armanti ak ay programme ku ko ñam xam ne mooy piir kon jàpp naa ne Armanti moom kenn dootu ko wax kenn ndax lépp ma baax produk yi mu am yëpp a baax waaye nag perfecto omo bi yeen jigen ñi xam ngeen ko ñam ngeen ko neena len 25 gram boobu ñu jaay ci biti gi bosam tati gram. tati la ba pare xop wa ba pare xop sa kan xet gu neex gi ni baye sa kër dafa am solo wa jagan gas mom Ibu ma ngi lay nuyu bu baax Ibu Ibu jagan ma ngi leen di kontaane ak jagaan family bi yëpp ñom babakar sa mag ju baax ji di kontaane mbolam staff ak management bu nekk fofu ci jagaan gas. kenn du yeen ci mim rew mm-hmm. kontaan nañ ci yeen ndax xam nga doomu rew fexe ba taxawal dara ci jël ay staffam di leen liggéeyloo ci biir réew mi buñ ko dooleelee rek bu yàggee réew mi nag ñàkk eh, ñàkk liggéey waaw waaw loolu am na solo baax yéen waa loolu am na solo bu ko defee mel ne ni yegg nañ ci njeextalu programme bi mhm. waaye ñu yi suñu di ñu setaan fans mhm. club bi waagaan mhm. fépp ci réew mi nuyu nañ leen fans club bi xadi trafic laay anti adu boy faal mu fi ci bakaw waaye yaa faat saw suñu alkali boobu ca faarato moom mi duñu ko fàtte benn yoon di nuyu ba anti jogumaay sar ca Banjul aji ma jigen sekk eh, bëggoon na sax mu ñëwoon ci wagan show bi dembal won woon baddeyam ah. waaye groupe yete toj na ñaar billahi wallahi Modou musa nako happy nan happy yaay de tooyo xam lu ko dina la pileen waaw waaw ma <laughs> wéyal na ko loolu Fatou hadinya Ngom bàyyiwul mu sedd Adama Mbuub Jaaga Mbay Xadi ña ñëpp dugg wane seen manen wa sekk wali fali ndela wali Jogom Gànn guddu fan la ñu lay ñaanal eh, nga yag suñu kanam lolu di ñi tetee chaque fali Faly Ndéla fali Jogom Gànn wali Ndëri sambak alin Ba Jaasin déet xanaa li mooy wax kay léegi tey moom nga koy wax ne ñankaay lu <laughs> bay jolli ñang bayal jolli ah. ah bala ma diri nga yëkkati di del tàggoo mu ne ko waaw waaw yow it xam naa dina lim na daan wax ay noonu waa nuyu naa leen bu baax jiital ci imam ak képp koo xam ne yaa ngi yeewu Kër Alaaji Kër maa ngi lay bégee di nuyu nag bu baax a baax waa Léona Niassène mhm. sama baay Mamadou Niass ak ñoom euh, baay ma yéri Thiam comme ko <laughs> waa Dakar moom kenn desul ñoom ñëpp laa ko may sama papa Aman Ñang ak njabootam ñoom mhm. ñëpp maa leen di bëgg sama papa Ibou Ndiaye noonu mhm. di nuyu waa Pasiteeru di nuyu tam waa Kébé añ su sama bàjjen aja xooja dara aja xooja gaas waa Pakala wa Kër Alsan Xooja wa wa wa wa waa Séni Gueye. ñun ñëpp kontaan naa ci waaw jar nañu ñu ñun duñ jël lif nag wër jot na nag a waaye man sonn naa man ak fans club waagaan yëpp maa ngi leen di béggee ku ci mel Adam Ndaw Tabakoto maa ngi koy béggee bu baax a baax di nuyu itam waa fans club waagaan famille di leen ñaanal jàmm képp koo xam ne yaa ngi ñuy béggee rek kontaan nañ ci waaye ñang nee li duf ci nak yepp xaju ci ci ma bay la nga tal wa wa ma nuy Amine ñang Baalo borom pa sukkar ay suñu mm. yaay joju ah, wa nuy Fat Sall ak Ndey Yaama sal sama mag yoyu di la ñaanal ak salam mm-hmm. ah, ya rohi Senghor ma nga ci mustafa mm-hmm. Kinte na ma nga jëlalaan ma tay xam nga last week la indi jalal ba ah, mo neex waaye reed bobu dafa xawonu hmm? jalal jalal jalal ba moo neex la sa jalal ya jalal jalal jalal ma gis nga reen ma indi woon keroog dafa xaw a jël bii ah. waaye nag duñu benn ndax Mouhamed Haydara Plaza mhm. moom saa yu ma takkee jaaru mooma gis ngeen mhm, tey fi ma mhm, génn ci ay jaaru nopp noonu la ma koy joxee tamit gis nga montur bu ma solo ci ah takkaay boo gis ma takk ci programme bu am yëpp waaw wallaahi ci ci ci moom lay jógee ci oh, Haydara Plaza gis ngeen waaw noonu la koy jàppoo ak man nag def ba mu baax kon ñu ngi koy ñaan a jàmm di nuyu bu baax Jeynaba di nuyu yaayam Fama Ndiaye waaye baalaaji duñu la fàtte benn yoon lool di ñaanal Mouhamed jàmm ak salaam waaye na xam ngeen tey ku dag hmm. laaj leen ma ku dagg ku dagg xanaa ef caam ca ca ca Vélingara hmm. doo ko dagg moo ko dagg dama koy dagg moo ko dagg dama koy dagg moo dagg dama koy dagg ko dagg dama koy dagg waaw kay ef borom Aminas Ovation foofu ca Wellingara nee naa leen taxi five five yi boo rek dem ba ca kanam rek ne drive bi Aminas Ovation ah, rek ñu ñu la lii ma nuyu yàmm bu baax ak képp ku ne ci atelier a ah, di nuyu Aliou di nuyu ñoom ñëpp ñoom almaami ñoom ñi nga xam ne ñooy ñooy dagg di ñëw tey nag choix la ma defal choix jees na waa jël reet rek tafal ma ko fii ma ni ma may ko musóor bu reet tegal ko ci daal yu reet tegel ko si mm. jaar yu bulu an reet xanaa maa toj sañse gi yaa rajaxe foor na xanaa yaa sañse Innovation yaa ngi am number bi ci 3519738 nee naa leen yéen ñi bëgg ñaw yi te mënu leen dem foofu mhm. dem leen ci seen i kat yi leen gën a jege ñu mhm. jëlal leen meesomen netaal leen meesomen bi wallaay rek call number bi ñu jox leen seen whatsapp number yi yi ñu am yëpp nga seen fa meesomen ñu ñëwal la ko foo mënti nekk bul sonn toogal ñu indil la ko xanaa wax ji neex na mhm. waaw lii la dak waagaan te yewit li nga sañ see cam tey xam nga may saf ah. ku jógee Abuja Abuja laa jóge waaw man waaw waaw maa nga jógee Abuja. te kii ñawi patron la ko ñawal gis nga poos bi. waaw waaw waaw waaw nii la la ko def hmm? foor na. na xam nga ne yére bii du yére como du yére caaxaat dañ ko daan gis ci internet bi rek ndek réew mi mën nañoo ñaw ñaw yu man bima ko daan gis ci internet la ko daan gis mbaa gis ko ñu def ko ci ay ay bug maanaam ki fu mu ñëwee lii fu ko ñëwee ah. ndekete yo rew mi man nañ lu mel nii rew ma ngi toj xam nga kan mo fa jaar Buso ma ngi daanu de Buso eh, eh, création ma ngi dem ay eh, Buso création a jaar fi xolal ma li lii rafet na leer na taaru na loo lo boko solé da ngay nek en laisse manam nim ko ñëwee dafa professionnel ba nga xamné da nga naan wuñ ko ci rew mi da nga naan machine yi nek fi ñewuñ ko waye ci rew mi lañ ko ñëwee ah. xalé bu ndaw di lu ñu ko naan Buso création moo ñëw mu nga fële ca weli ngara la ma ñëwal next week de barke rasulullah billaahi kenn du ko wax duñ ko wax mu ngi noonu kon Bousso kontaan nañ ci yow bu baax a baax bu fekkee danga ngaa bëgg a dem place Bousso na kaay wax la fi jaar boo demee ba jon sunu neema tallal boo mel ni kuy dem sincu alaaji waaw boo demee balaa nga àgg ci marché Sinthiou Balia bi ci Cass Power Johnson balaa nga fay egg bu fekkee da nga Johnson Neema bi mm. ci sa càmmoñ la lay nekkee mm-hmm. waaye bu fekkee da nga jógee Alaaji boo rombee tuuti Cass Power Johnson mu ci sa ndeyjoor ah, da ngay gis ñu bis bind Bousso Creation ci kaw waaye Bousso yaa mën a ñëw yàlla na sa jàmm yàgg nombaam nag 393 la 0776 3930 776 3930 776 kooku mooy nomba ah, Bousso Bousso Creation ah kay daggaan jot mhm. semaine bu jot rek ñu dagg jox ma mhm. nañ beneen mhm. te temps jël da leen wax ne nag ñu ñuy daggaaleel bi Kébécounda naa la nga dem lan mooy seen problème dem la la nga demaa ñu jox la del lan lañ ma yebe yebuñu la ah, dañ laa la sa place waaye yow sa bopp yaa neexula jot wax la demal nga jël sa piis <laughs> ñaata yoon <laughs> ah yow alaaji ak Mariama dagg rek la ñuy def ay ca bu ngi noonu kon nag waxtu waa ngi noonu jeex na tàkk waaw man du ma demee noonu nag foog ma def nii wane suma sañ ñu ngi waajal gàmmu gi waaw loo ci wax waa Medina Baye dinañ woote. Mm, yeneen yeneen ruq-ruqat woote. Ah, waaye li ma leer ba leer mooy gàmmu gi moom. Mm. na ko ñëpp waajal. Mm. ndax juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu koy màggal ñëpp a koy màggalandoo. Mm-hmm. kon gàmmu gi te ngeen koo waajal. waajalaan gàmmu gi. waajal ko ndam la ndax gàmmu gi day neex. bisu yonent bi du ndaw. Mm-hmm. ndax lu yàlla bind moo tax moo tax bu nu koy waajal dun ci am sago eh, lu nekk sunu poos ñu génnee ko eh. lu ñuy togg togg lu dan ko indi sunuy soxna dana ñu sañse mm-hmm. ñu sant sunu boroom mm. fekkee déwén loolu moo nu war kon yenen subee xewle na ko ñëpp war sin ma nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar yi jiin